أنت الذي خير خديم المصطفى فإنني أقدم بما اصطفى من سنني خير خديم المصطفى فإنني أقدم بما اصطفى أقدمه إلى دخول الجنة دار الخير والمنى والمنى asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu bokki jullit yi bokki taalibe yi bokki téléspectateurs yi jàkkaarloo ñun di ñu seetaan ginaaw bu ñu sante yàlla julli ci yonte bi sallallahu alayhi wa sallam feddliwaat sunu yaakaar cheikhuna ahmadul xadim <clears throat> ñaanal eh, jëwriñu yoon wi di sëriñ Tuubaa cheikh mahamadul muntaxa yàlla mi nga xam ne moo mën a sàmm te mën a wattu yàlla nañ ko yàlla sàmmal te wattul na ko te may ko fan wu gudd waa ko wér ba naal yi mu naalal lislaam yëpp mu àggale ko te ñu ànd kook moom te am ci ngërëmul sëriñ bi mbokk yi nu leen di nuyu tey jii ci bis bu tedd di bis bu màgg ci yoonu murit di bis bu am taarix bis bi nga xam ne ci la yoonu murit sosoo ca Mbàkke Kajoor di ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru koor e, ñu feggoo ci ak sunu sëriñ di sëriñ Moor Mbàkke xam sa diine di doomi e, sëriñ Jili gànnaar moom sëriñ Mor Soxna moom Maam Mor Jaara boroom saam waaye di kenn koo xamante ni bi itam ci doomi daara yi nga xamante ni bi ñoo jànge alquran jànge xam-xam ci Touba di dëkk bu sell bi ci jaare ko ci ay boroom xam-xam yu mag rawatina ku mel ne sëriñ Xaadim Mbay Longoor ak ku mel ne sëriñ As Jaxate borom daarul maarif ca borom xam-xam bu barkeel boobu waaye itam di doomi soxna Ndey Mbàkke moom sëriñ daam moom maam Cheikh Anta Mbàkke mu mel ne Eh, noonu ñuy taggee kilifa yu mag yi ne ndeyamay baayam baayam di nijaayam moom dal na ko ci askanu maam maharam eh, ñu fas yéene seq ak moom rek ab jataay bu am solo bu gàtt nag bu jëm ci sosug yoonu murit xanaa dama koy bàyyi mu nuyoo ak eh, téléspectateurs yi bu noppoo rek ñu ànd ak moom nag ci laaj yi nga xam ne danañ ko laaj ci lan moo tax sëriñ bi taxawal yoonu murit ak ci yan tànk la ko teg sëriñ bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabilalamin wasalaatu wasalaamu ala ashrafi almursalin sayidina wa maulana muhammadin alamin wa ala alihi wa saxaabatihi algurri almayamin wa ala xayri xadimihi di lxabli almatin wa ala man iqtafa atharahum ila yawmi ddin mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh gannaaw bi ñu santee sun borom subhanahu wa taala julli ci Moustapha sallallahu alayhi wa sallam tey jaajëfal Cheikhul Khadim noo ngi leen nuyu den siyaar den ndokkeel ci bis yi nu nekk rawatina bis bi nu nekk ni ko waxee di mujj koor di bis bu am taarix ci yoon wi bis bu mat a fàttali ko euh, mat a jàngat ngir la la ci xewoon mbir la mu màgg ak lim jur di ndokkeel si Amadou Muntaxa fi nekk Sëñ Tuubaa di ko ñaanal suñu boom yàggal ko fi loolu te wéral ko mu àggale mboolem ay yéeneem di ko ñaanal njaboot Sëñ Tuubaa di ko ñaanal eh, taalibe Sëñ Tuubaa yëpp dendu Sëñ Fallu di fayam nuyoo eh, di ñaan sunu defal tawfiix ci li ñuy bëgg a waxtaane incha allah. jërëjëf sëñ <coughs> kon mbokk yi rek ñu fas yéene ñëw ci tomb am solo sëñ bi dafay mel ne eh, sëriñ bu mag bi bi muy feeñ jamono ak ni mu feeñee jamono ci askan wu mag dafa fekk. Euh, waajuram di ab sëriñ daara buy jàngale waajuram itam way waajuram di sëñ daara bu doon jàngale waajuram woowu waajuram di sëriñ daara bu doon jàngale ba boo tolloo ci cosaan da ngay xam ne askanu maam maharam bi ñuy jógee Fuuta di ñëw Jolof ay la sëriñi daara yu laxasoon lañ di dem ba noonu mu agsee ci Jolof ba fekk fa buur boobu di bërgël ma fent ñang nga xam ne bi mu koy dalal wax nañ ne euh, bi bi bi maam Ousmane di ñëw foofu li mu àndaale ci ay yi daara jéggi na dayo nga xam ne kon yàgg nañ ci diine boo delluwaatee itam ci lu mel ne taarix ci histoire way juróom wu jigéen euh, la ko tàmbalee ci ma busa Awa Mbaay ma ngay jàll ci Amaat ak Ali ñoom ñëpp it ay sëñ daara lañ yoo xamante ne bii euh, ci de ci diine rek lañ leen mas a xam loolu nettali na sax ci histoire ne soxna Astawaalo biñ koy jox sëriñ ma bu so dafa fekk booba mu ñaanoon baayam na ko dama bëgg nga may ma ma ma ma liggéeyal yàlla liggéey boo xamante ni bii da ngeen may teggil lu jëm ci wàllu togg ak yàq ak ya ca aju ndax dama bëgg bindal yàlla ñetti kaamil yoo xam ne benn bi ci liimaan laa koy bind benn bi ci lislaam benn bi ci lihsaan nga xam ne bi ñetti kaamil yooyu àgg la fekk sëriñ boobu ñëw fi way juróom boobu daal leen di boole kon day mel ne lépp sëñ Tuubaa rek ci diine lislaam la sosoo mu mel ne itam ci wàllu jàngale fekk na way juram nekk ci mu doonoon ko yitte woo xam-xam doonoon koy taxawal lislaam kon day mel ne bu fekkonte ne bii la ñu njëkk a xam ci yoon wi muy doxin woo xam ne jàngal nit ki alxuraan ba mu mokkal ko nga jàngal ko xam-xami diine yi ba mu xam ko nga teg ci ko ci siraatal mustaqim na ko yoon waa ngoog doxal bu fekkoon ne noonu la sëriñ bi ba mu dikkee mënoon naa bàyyi yoon yi mu kon noonu waaye day mel ne sëriñ bi ba mu ñëwee am na waneen doxalin wu mu gis ne moo gën a gaaw a àggale ci nit ki ci yàlla te ba mu jaaree ci yoon woowu it gis nañ ne mboolem ñim ci ñoom ñëpp réussir nañ kon dafa am euh, principe principal boo xam ne moo tax sëñ bi taxawal lii nga xam ne moom la tuddee tuddee ko yoonu murid bala ma ciy ñëw damay njëkk ñëw ci baat bi mu ko tuddee muy muridullahi mu ne tariixa yu bari am na tariixa yoo xam ne askana leen ko ci dëkk bañ dëkk am na tariixa yoo xam ne askana leen ko ci nit kam dëkk ba ci sax ngir yi boo ci demee dangay fekk ñu naan ngirum imam malik ngibu ngirum abu hanifa ngirum imam safi ngirum abu ahmad anbal waaye yooyu yëpp kenn ku ci nekk dafa delluwaat ci yow sëriñ bi nag bi muy taxawal yoon wi esprit bi mu njëkk def ci boppam mooy day delloowaat lépp ci yàlla amut leen lu laal sëriñ bi tudde ko muridullahi tomb boobu laa bëggoon njëkk cee ñëw. waaw ah, jërëjëf sëñ Fall tomb la bu am solo loolu nga wax sëñ bi nag mooy loolu mooy doomi daara. est-ce que mooy koo xam ne bi ñu ñëwee daara la fekk waajuram yor ñaari waajuram yëpp di borom bi daara seen maam ak seeni i bàyyi di borom bi daara. waaw kon dafay ci daara kon loolu mooy doomi daara dëgg-dëgg. <laughs> waaye boobu it loolu mooy li gënoon a màgg gën a gën ci jëf ju ñuy jëf ñu mën a gën ci liggéey bu ñuy liggéey yàlla mooy xidmaal ko ci xamle xamuñu woon leneen lu ko ëpp doon lu ko gën mbaa mel ni moom lu du loolu moo tax sa nit si diine yi fi nekkoon yépp la doon seen aada mooy jaamu yàlla ak liggéey bu tege ci xam-xam muy jàngale mm-hmm. ndax jàngale ñu boole liggéey mm-hmm. ndax lañ daan dunde ñoo ko doon ñaq dañ daan dañ ñaq lu ñuy dunde nga xam lépp lu lew lay doon mm-hmm. ndax nit ki munta ay jëfam munta sell te fekk la muy dunde nekkul lew jàpp nañu bay mooy mooy li gën a lew ci ci ci ci ci ci nit dunde mm-hmm. euh, moo tax na kon mu fekk muy këru xam-xam kon di këru diine mu feeñ ca waaye it teel a sóobu lool yoonu yàlla teel a nit ñi it mm-hmm. loolu suñ Basiiru di nettali ji mel waxee xadim wax ne soxna soxna si da daa dénk ay doomam eh, jaamu yàlla ak farlu ak góorgóorlu di leen jàngal jikko yu rafet boo bokk boo ko leen daa wax mooy nit ñu baax ne dañ daa taxaw di naafila guddi min da bi saalihiina qiyaamul la ci dégguñ ko dégg tax na sëriñ bi tàmbalee fanaan ci jullikaay bi te boobu dellu ko sax dara di fanaanee taxaw eh, teel it soobu yoonu tasawuf noonu ma daal nit jekk-jekk dem ci àll bi nekk fa ay fan dañ ko mujj wëri ba seet ko mu ñëw fekk raxas bopp bi soppi ko yére bàyyi mu demaat mm-hmm. lépp mooy teel a soobu ci ngirum tasawuf teel a jox itam yitte xam-xam ndax fekk na si sëñ borom daara mm-hmm. fu ne nit laxas di jàng si ci moom mu teel itam peeg fànni xam-xam yépp waaye nag am na leneen lu na ci moom loo xam ne lu war a feeñ ca ca kanam la mm-hmm. waaye wormaal gi mu wormaal bi nga jàng jàng motal lim jàng lépp wormaal Sëñ Mor Anta Sali ak jox ko cër ak màggal tax na mus sa feeñal dara ci kanamam waaye nit yàlla yenn am na ñoo xaman loolu ki njëkk a junj ci moom war dana am lu feeñ mooy sëñ Mamar Kan la ñu ko wax doomi sëñ Daawda Kan ci dingiraay da doon wëloo Sëñ Mor Anta Sali ñëw fa siyaare si ko de xool Sëñ Tuubaa ba yàgg mu sadd ñaari bayit ne indal quruuna bila sunya azimmatuhum fi raxatayka fa yanqaadu ma an quuda hada li ahmad bamba kaana waliduhu bahral ulumi namiral ma i mawruda nee kii ma gis daal xar ay xar xarnu yeeg seekal yépp bindee fi seekal yépp seeni nos mu ngi ci loxoom tey des na diir bu gàtt ñëpp daanañu wommatu wommatu dikkal ko daane ahmadu bamba mii laay wax na mi nga xam ne waajuram géej la gu neexum ndox bi ñëpp di root si géej géej la mooy da ci jël borom xam-xam bu bari la boo xam ne ñu bari dañuy ñëw di jàng si ci moom hmm. kon mi ngi mi ngi juñ ju xam-xam suñ moo doon sëli hmm. te ba muy wax sëñ bi la ba sëñ Tuubaa ci ñaar fukki at fukki at juróom-ñaar la toll nga boo am njàngam soo noppeegut hmm. sëriñ bi tontu ko ñaari bayit moom sëriñ bi waaw nee na li yàlla aynu niltul mu maqsuuda izzaara manzilana ilfu bnu daawuda allahu akbar wa huwa alxamimu alladi min wuddi ruyati xad kuntu la shakka tula dahri majhuda sama xol sedd na sama xel dal na mm-hmm. bi nga xam ne bi nga xam ne kan ji dikk dikk na seet si noonu mm-hmm. di koo xam ne diiru jamono lu yàgg daana ko bëgg a gis ngir rek nekk gi nokk nekk ab soppi ak lim làmboo kon bi muy junj sa bi ne am am lu mu àndal boobu sëñ bi feeñale ko dara dëgg la ba fi suñu waroon sali jógee nag ci amarsach yi tollu 1882 ndax bàyyi ba ca déwén sa euh, ci ama asach yi ca kawar wa ci bis bii nu toll tey ci la nag doora fekk nag lu jiitu loola su daan toppal dongee seen ali day topp yàgg mu ne lii day màgg na lool bind alxuraan te xooloo ko bind ko mu rafet mu sell wow koŋ lu màgg la waaye am na lu ko gën a màgg mm-hmm. suñ ko masaan ne lu gën a màgg loolu mooy mu ne bind ca aliwa nga dégg këj këj ja lawhul mahfuz mm-hmm. ñu ne ñu ko loolu xanaa ngërëmal yàlla rek boobu mi ngi junju lii muy bëgg wax te te amugu digal ci woote gi mm-hmm. baab diir nag la xëy xëy nag digal lu jóge ci yàlla jaar ci yonent bi saa sam ñëw ci moom ne ko rabbi asxaabaka bil himmati ñu ànd ak yow naga leen tërbiya ci himma mm-hmm. mu yitte ju kawe mm-hmm. ca la waxoon waxam ji siiw jooje ne képp koo xam ne njàngum kese moo li fi indi woon mm-hmm. man nga seete feneen foo jàng ji waaye ku bëgg a jaar nag fi nu jaar maanaam ku bëgg jaar fi nu jaar maanaam bëgg dox ci sunu doxin na na na na fi des na ànd ak noonu si man li jëm neen fa zahabal jullu wa baqiyal xullu la ëpp dañoo takk seeni bagage dem ndax boo ñoom xamuñu lu gën a màgg lool li nekk tey jàng rek leen fi indi woon ñu neew des fa ñoo xam ne doyloo guñ doyloo sëriñ bi ci sàmm moom ak ragal yàlla ak leen dund ca moom xam ne ni kéem lépp lu mu woteer loolu wér la tax ñu am tawfiix toog toog moom ànd ak moom ca loolee mu ñu ànd ak moom kon sa bi jubluwutoon jubluwutoon indi tarixa bu bees hmm. waaye dafa fekkoon rek li ñu tuddee tajdiit mooy dafa fekk lislaam ju yi ji sunu boom joxoon yendu saa sa mu indi ko ci jamono woote ja hmm. alxuraan wàcc leeral ko sunnaam firi ko hmm. daa fekk ay rax tàbbi ca fekk nañu ñu dugal ci lu bari lu ci bokkut génn ci lu bari lu ci bokkoon ba biddaxa yi bari ba jaxasoo sunne bi kenn mënatu ko xàmmee mu ñëw na ngir yeesal lil Moustapha nawitu mooy mooy jaddi sunna lu xarala wi ni ahmadu mm-hmm. mu ne kon nag ku bëgg yàlla dikkal mm-hmm. ni nga ko waxee luñ mas woote lu nekk am loolu am na màndarga muñ ko wutal ca woote ga mm-hmm. bu dee diine nasraniya dafa solo sosoo ci dëkk bu tudd naasira ñu askan ko ca ne nasraniya bu dee dëkku bu bu dee diine yahud dafa am xeet wu tudd yahuda mm-hmm. ci ñoom la sosoo mm-hmm. ñu ne kon diine yahudiya mm-hmm. su ne masihiya it yent yàlla masih moo ko fi indi moo tax ñu ne masihiya kon lu ne askan nañ ko ca dara ba mu des li si doa wata moom dana ko bëgg yàlla ko bëgg yàlla kon day mel ni ku ne ca nga bokk moo tax kon jullootoon tarixa waaye dafa bëgg yeesal lislaam waaye ku bëgg yàlla fekk ko ca loolee mu mu wala ca euh, moo tax mu waxoon ne euh, Touba ñett ya fa tax ma sanc ko mooy daw nit ñi ak daw li na li na ci loxoy nit ñi ñaareel mooy eh, dafa yaar yaar na yaar yaar moo tax ma sañ mooy daw nit ñi ak daw li ci li na ci loxoy nit ñi ma dikk yaar laa fa fekk wit nde ak saawo moo fa ne jàng ñaara ma fa fekk ku yàlla dong ñor ak ko àdduna dong ñoo tamit mbuba yàlla macha allah daal ñoo ñànd kenn jaaxaluma ci su dee ki bëgg yàlla naa ko womat ba ne ko yàlla ngi nii ki àdduna ñor nag dinaa ko xëpp àdduna su ma su ma jox nag soxla ma ci dara waaye su ma ko joxee àdduna rek alibis bi jëlam fa di jox su ma séddoo sama ñi xoolee ba ndax lay seqo jox naa ko ci àdduna allah macha allah sëriñ Mamor sëriñ Mor xam si diine euh, leer na <clears throat> ci njalbeenu ko sosub yoon wi kon day mel ne sëriñ bi dafa fekk aw yoon woo xam ne ay waajuram dañ caa jaaroon mu jaar ca ba mu yàgg mu gis ne lii nga xamante ne bii kat mooy diine diiney yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci mooy diiney lislaam gis na ne am na lu bari lu ci bokk ñu génne ko am na ñu lu bari lu ñu ci dugal te bokku ci mu ne di daal naa ko delloowaat ba mu melaat cosaan la na meloon loolu moo tax eh, ci biir daaray alquran ji mu nekkoon doon ci jàngale ci daaray waajuram te dana feeñ ci jotaay bi ci kanam bi yàlla loolu ñëwee ci moom lu ëpp ca mbooloo ma ndax ëppoon nañ ñetti téeméer dañoo génn la fa des matul ñeen fukki nit kon moo tax sañ sëñ Ibrahima Diop di nettali ne lu ëpp ca mbooloo ma dañoo dem lu néew des fa waaye barkeelu kàddu sëriñ Tuubaa ak dëggu euh, pas-pasam ak wéru euh, wooteem tax na la demoon kenn xamu leen waaye lu néew la desoon ñoo tasaaroo ba àdduna bépp ñu daj ko mu mel ne euh, leeral nga ci wàllu diine yi day mel ne tarixatul muridiya li mu waxal boppam moom na sëñ Tuubaa waxam du weddi jëfam jëfam du weddi waxam li mu wax ne diinun si waa islaamihi laa yuhmadu indal ilaahi wa bihi nu jaddidu kon gis na ne diine yi lislaam adressé wuñ ko ci yonante bi sallallahu alayhi wa sallam adressé wuñ ko ci dëkk ba mu dëkk muy madinatul munawara fa mu tëdd addina ko adressé wuñ ko ci xurayshi eh, gam bokk duñu wax diine yi waaye an inna diina indallahi al te al islaamu eh, yaakaar naa ne ñëpp a ko bokk koo gis mu moo xam mu bokk ci diiney chrétien diiney yahud dina ju mu jënoon eh, li mu bëgg rek mooy mucc te mooy diiney mucc ji kon day mel ne principe bi suñ borom taxawalee diiney lislaam sëriñ Tuubaa li mu woote ba mu dikkee itam dafa xam ne muridullahi ku bëgg mucc wala ku bëgg a àgg ci yàlla yoon waa ngi nii loolu moo tax yoon wi adressé wu ko ci Mbàkke Kajoor wala moo adressé ko ci Bamba wala moo adressé ko ci faneen ak faneen macha allah am na solo lool day mel na ni yoon bi mu ko daan kaa wootee sëriñ bi mbooleem xeeti turux yi nga xam ne turuxi suufi yi lañ turux bu ci nekk sëriñ Tuubaa gëstu ko nii mu toppee ngir yi ba nga xam ne boroom ñeenti ngir yëpp kenn ku ci nekk Serigne Touba waxal na boppam lam waxal boppam ci na doon yàlla doon na loo na ma ngirum imam Malik may na ma la Abu Hanifa nangam ak nangam day mel ne xeeti ngir yi sëñ tubaa da koo ndar képp ba noppi tariixa yi kenn ku ci nekk gërëm ko mu soo ko taxawal lii muy taxawal. waaw dëgg la li euh, nga wax léegi li ci desewaat mooy yoonu murid mooy lislaam rek. allahu xam nga lislaam jagowul benn dëkk. Mm-hmm. a amul dëkk buñ ñu ko askanil mel ni mel ni nasaraan yi bi ma waxoon léegi aw xeet jagowuñ ko nu mel ni yahuda daa nga xam ne ak jiir lañu woon mhm. nekkul lu jënn jëmbu jëm jago ni ki masihiya mhm. waaye dafa dafa dafa dafa eh, universel mooy dafa ubbi ko mhm. mooy ak wommator jëm ci yàlla al islam mooy eh, salima yaslim wala yastaslim mooy mooy istislam mooy wommatu jëm ci yàlla baat bi loolu murid nag loolu la moytu mooy ki bëgg yàlla rek. dëgg la kon dafa mooy jëmmi lislaam rek la woote kon. <laughs> Euh, dëgg la jaar na bi mu ñëwee fekk na fi ñetti ñetti ñetti euh, tarixa ñoo fi gënoon a siiw. Mhm. mooy tarixatu tijaaniya. Mhm. tarixatul xaadiriya. Mhm. tarixatu chadaliya. ay waajuram nag moom ci tarixa ci tarixa xaadir leen fekk. sëñ Maodo Sylla wirdu xaadir la yoroon mm-hmm. sëñ Bousso bi wirdu xaadir la yoroon mm-hmm. ñu mu mu fekk leen ci wirdu yi yi nekk jël ko mm-hmm. nekk na ci ab diir ba Cheikh Abdul Xaadir Jilaan mi borom wi feeñu ko gërëm ko jox ko ijaasa ci wirdu wi mu sañ koo joxe mu sañ koo joxe ni ko ni ko joxee gannaaw bi yenn saa suñ ci boppam feeñu na ko joxaat ko ko ni mu ko joxoon si Abdou Khadir na ko directement. wirdu jox na ko direct mhm. mu bàyyi ko jël wirdu Tijaan. nekk ci nekk ci ba Cheikh Amadou Tidiane yi mooy itam gërëm ko jox ko ijaasa ci wirdu wi. Mhm. ne ci ba yenn saa suñ ci ci boppam yi mooy itam feeñu ko joxaat ko ko ni ko jox Cheikh Amadou Tidiane yi. iddu saase yi mu def ci ba Cheikh Abul Hasan saase li mooy itam jaar moom foofa moo tax ci ba itam yooyu wax ne mhm. ku ci nekk mu ne gërëm na ma. loolaa waral ngërëm la. mu dem ci borom ngir moo tax ma yox ne mashaiqi sayyiduna al jilaani wa saadali yu maahu tijaani mu dem ci borom ngir yi donte joxuñ nanu am ngir nun nenu maaliki yee moom laa di dénk ndax ngir la mu sell mu wér mu dëgër waaye doxul nag moom mu mu mu mu mu wane na ci ngir sàng la féete ndax la waroon moo wax loolu mooy daf fekkoon am lu mu doon def ñu di ko ci roy mu ne bu leen def lu ma lu ma def ngeen roy ma ci na ngeen tënku ci téere fiqi Maalik yi mhm. ndax dama am samay jagley bopp dëgg la ci daan wax dénk naa li ko mbir Maalik yi dénk naa li Maalik yi na nañ ci sukk nañ ci wéeru mhm. waaye liggéeyal na imaam Maalik ba mu gërëm ko mhm. liggéeyal Abu Xanifa ba mu gërëm ko gërëm imaam Shafii ba mu gërëm ko liggéeyal Ahmad ibnu Hanbal ba mu gërëm ko moo tax mooy tam ku ci nekk moo ne euh, a'immati fil fiqhi malikul ali mm-hmm. wa shafii wal xanafi wal xambali allahu akbar nga xam ne kenn ku nekk ne ñoo ñoo eh, royukaayam nekk na ko dem na ba ne xulafaalu arbaa gërëm nañ ko mm-hmm. ba ba ci nekk ku ma gërëmul te yàlla mi borom na ma macha allah man lam yakon yarda man lam yakon radia an fal karim radia andi sa yarim mm-hmm. kon gannaaw yooyu la fekkoon bi mu wirdee wirdi yëpp na mu mujj bàyyi wirdi yëpp féete wala alxuraan rek def ko mu wirdam waaw euh, wax ne alxuraan mooy mooy sama wirde mooy sama wirde ca la sax ca la sax ca la sax ba bi mu demee gànnaar bi mu jógee ci géej ba dem gànnaar te ci weeru koor la ko nag yoon saa sam feeñu nag jox ko nag wirde yi nga xam ne moom alma xusmi la basité rasuli salaa nga xam ne moom la ko joxal bopp mu wirde bopp nga xam ne bokk te yenn ci wirde allah jërëjëf jërëjëf sëñ Mor eh, bala ñuy ñëw ci loolu xam naa yaakaar naa ne bu dee xeeti wird rek sëriñ bi jaar na ci bépp tariixa yi nga xam ne ñoo gën a siiw eh, ba borom tariixa yi seen bopp feeñul ko boppam jox ko lijaasaal ko jox ko mbootum wird ba ba mu am sañ koo joxe te yaakaar naa ne ma fàttali ne li war na ijaasa gi mooy daana joxe gannaaw bu amee dama xas ba noppi mhm. te am na ñooñu wirdu yaan leen jox duñu jox am na ñoo xam ne wirdu xaadir leen jox macha allah <laughs> nga xam ne kon ci biir yoonu murid rek am na ci ñoo xam ne ñu ngi tënku ci bàmba ji waaye te yor wirdu xaadir mm-hmm. am ñu tënku ci biir bàmba ji yor wirdu tijaan mm-hmm. kon day mel ne moom li ma waxam ne fa kullu wirdin yuridil murida li hadratillahi walan yahida sawa intama al jilani aw intama li ahmad tijaani aw li siwahuma min al aqtaabi ba na way wa asgi ala moom mboolem xeeti turux yooyu kenn ku ci nekk sëñ Tuubaa am na ci responsabilité am ca ngërëmul yàlla ba sañ ko joxe ni ko ñëpp war a joxe beneen bi bu dee ci wàllu xeeti ngir yi moo xam ngay tënku ci imam Malik ngay tënku ci Abu Hanifa ngay tënku ci imam Safiya ngay tënku ci Ahmad Anbal ñoom ñëpp kenn ku ci nekk sëñ topp na sa ngir ma ba suñ borom gërëm ko ca borom ngir ma gërëm ko ca ba nga xamante ne bii sëñ naa jëfandikoo ngir mooma te du yàq dara ci pas-pasam kon day mel ne sëñ bi moom laata muy woote ne yoon wii moo jëm ci yàlla dëgg nag dafa dafa ñall yëpp dañoo daa fexe ba mu sosi ci yoon wi nga xam ne ci la jëm si nga xam ne yàlla ñall woo mën a rek ci biir mi lay sos ca ngir mi mooy euh, muridullahi bala ñu ciy ñëw sëñ Mor am na solo lool day mel ne sëñ bi wootee bi yoonu murit dafa am ñaari étape bi mu jotee ndigal li ak bi mu ko wootee dafa mel ne bokkul ndax boo xoolee ci cosaan nettali ku mel ne sëñ aadama géey ak sëñ Ibrahima Sarr Njaañ xam ngeen ne wala rëy sëriñ bi la woon te dañuy wax ne euh, Adama Guèye awwalul muridin ba euh, Ibrahima Fall baabul muridin hmm. day mel na kon taalibe bi njëkk a jébbalu mu di sëñ Adama Guèye euh, histoire nettali na ne moom sëñ Adama Guèye dafa nekkoon wala réew sëñ Ibrahima saar Njaañ te daawuñ tàggoo nga xam ne sëñ Ibrahima Sarr Njaañ daana jóge njàmbur di ko seet si moom muy nekk fii léeg-léeg mu seeti sëñ Ibrahima Sarr Njaañ mu dëkk Mbaabu Mbaabu dara ak Mbàkke Kajoor hmm. yaakaar naa ne eh, sëriñ bi daana jóge Mbàkke Mbàkke Kajoor di ñëw eh, daana jóge Mbàkke Kajoor di ñëw tey baraxaar hmm. di seet si eh, ku mel ne tafsir Mandoumbe Mar wala mu def fekk sëñ ba faa xuja wala hmm. bàyyam daan ko fa yónni loolu xaritu loolu na ko sëñ Adama Gueye daan ko faral di ko gis ba ne histoire nettali na bis bi sëñ Ibrahima Sarr Njaañ seet see sëñ Adama Gueye na ko daal damaa jóg lu ñu war a jàng jàng naa ko lu ñu war a xam xam naa ko léegi li ma dese mooy àgg ci yàlla damaa bëgg nga wëri ku ma àggale ci yàlla. ci la ko sëñ Adama Gueye waxee na ko am na doomi sëñ Mbacke Mor Anta Sali juy faral di ñëw fii ci tey Taïba xaar di seet si eh, sëñ Taïba. bëggoon naa nga bàyyi ko xel ba mu gis ko fi wax nañu keroog ba ñu ko gisee ñoom ñaar dañoo ànd ak moom dem ci kër ga xaar ko ci buntu kër ba ba mu euh, tëralu bind ba mu bëgg a tëralu wala mu ndox yo ko bàyyam yónni ba ñu génn ñu dajeek moom ci àll bi hmm. nu ak moom na ko nag ñun kat kii sëñ Adama Gueye doonoon xaritu sëriñ bi hmm. boo xam ne ànd nañ dem ndar jënd ay téere ànd nañ dem fu ne wax nañu sax ne ndomb ak baat gi sëñ Adama Gueye di takk keroog bi mu àndee ak tubaa Touba sëñ Mor Mbacke Mor Anta Sali yónni ko ndar muy jënd ay téere mu ànd ak moom ba mu jëndee téere yi ba dëpp dafa am lu ko feeñu moom sëñ Adama Gueye dal ko ba mu dikkee dañ ko ne gonek tukulóor gi muy àndal de xawma lu mën a xew waaye bu jommee moo ko jommal hmm. wax nañ ne ci la sëñ Touba bindee loolu mu bind jox ko sëñ Adama Gueye mu def ko ndombak baat googu mu daan takk wax nañ ne nag bi mu jógee Mbacke Kajoor kon day mel ne ndigal li bi ko sëñ Touba di jot ak bi bi woote bi accès dafa nekkul benn ci ni taarix nettalee ndax daa mel ne bi mu jógee Mbàkke Kajoor dajeeg sëñ Adama Gueye mu ànd ak sëñ Ibrahima Sarr Ndiaye dañoo ànd ak moom ba ci bi sëñ Ibrahima Sarr Ndiaye sëñ Adama Gueye na ko nag ñun kat daa am luñ bëgg naa mu ne ko man mii damaa bëgg àgg ci yàlla léegi àgg ci yàlla laa bëgg def kii ma àndalit sama xarita duñ tàggoo njàmbur la jógee moom it daa ci yàlla fa mu nekk nag xeeti fan fànni xam-xam yi ñu fay jàng yépp jàng nañ ko hmm. nee na sëriñ bi ne leen ku bëgg àgg ci yàlla de dafa am nooy def hmm. nee na sëñ Adama Gueye ne ko nu ñuy def mu ne ko loolu li ñuy wax tudd lu ngay def hmm. nee na sëñ Adama Gueye ne ko nu ñuy jébbaloo nee na sëriñ bi moo leen sabaat yi hmm. bi mu leen sabaat yi mbalaan mi sëñ Ibrahima Sarr Njaañ sàngoo woon nee na la laal ci suuf sëñ Touba toog ca ñoom sëñ Adama Gueye jaayante sëñ Ibrahima Sarr Njaañ jaayante te benn booba sëñ Mbàkke Mor Anta Sali mi ngi dund hmm. nee na ñu ànd ak moom nag na ko léegi nag yow daara joo nekkati fa la ñu ne nga xam ne kon li indi sëñ Ibrahima saar Njaañ Mbàkke Kajoor indi sëñ Adama Gueye Mbàkke Kajoor ñu ñëw nekk ci daara yi sëñ Mbàkke Mor Anta Sali sëñ Touba la waaye du woon am njàng bañ fa nekkee nag ñu continuer comme université la ñuy wéyal seenum njàng ba dogal boobu ñëw fa nag sëriñ bi xëy benn bis nag santaane lii woote ko mu mel ni yàlla faraat na leen ca ñoom ñaar mooy ci njëkk jaayante ga nañ njëkkoon a jaayantee te booba siiwagut te ndigal li am jaayante gi nag dafa mel ne ñaar fukki fan ak juróom-ñaar la wax nañ ne ci ab yoor yoor ajjuma sëriñ bi xëy woote ci lañ bëggoon nga dugg ci sëñ Mor. jërëjëf sëñ lu ci laaj bu am solo boobu ni ko waxee noonu la demee mooy sëriñ bi moom diir li fi sëñ Mor Anta Sali nekk da koo jox cër warmaal ko warmaal goo xam ne tax na mos a yëngal dara ci ak teewam mos a wane dara daa nekkoon ci ronam rek ngir jox ko cëru waajur. Eh, waaye teew nag àndal lépp nag ñi nekkoon ci daar ji am na ñoo xam ne teel nañ koo doyaloo ngir seetlu guñ seetlu ci sàmm gam sàmm ragal yàlla gaag doxin wa ñu xam ne kii kat ku mat àndal la tax ñu teel koo doyloo ci seen bopp. wax mm-hmm. ci sëñ Adama Gueye sëñ sëñ Ibrahima Sar Jaaj mm-hmm. sëñ Amadou noonu la ci dem woon mm-hmm. mooy ko teel a ànd sëñ bi la ba bi ñuy nekk ci daara ji sax di jàng ma masaan dem tool si am sàmba jooju day day day wax sëñ bàyyil day bay sasam bay bayal sëñ bi aw sasam allahu akbar sëñ bi daa ko wax ne fa fa ab añ jafee dinaa la fa dinaa la fa jox wàññ allahu akbar euh, nga xam ne kon ku teel ànd sëñ bi kon ñooñ am amoon na ci mbooloo moo xam ne teeloon nañu ko doy moo tax mbooloo moom nga xam ñoo ko doy la woon nag mm-hmm. bi ndigal li agsee ba mu wootee ñooñ ñooñ ña fa des mm-hmm. ñooñ ña fa des mm-hmm. nga xam ne euh, nga xam ne jàng moom indiwu leen kese rek jàng kese indiwu leen waaye bàyyi nañ ko woon xel waaw di ko topp ñu ko doon topp ñu ko doon bàyyi xel sëñ bi ndax moom bi yàlla da ko joxoon xel moo xam ne eh, bu nga xam ne du xar baax du waaye xelum kese rek suñu bon da joxoon na ci loxo ni jox joxul kenn xel mi àggoon na foo xam ne sëñ bi war mu sànni di tukki mbaa mi dugg xalwa dayewoo sëñ bi wéete wéete moom su fekkente ne la la mu war a am fukki fan la mm-hmm. da koy tëraleel bindu fukki fan ci mboolem lu doo ngay jàng rek. xeeti fànn yëpp. fànn yépp ñee jàng arut mu jàngal ko fen toll bindu fukki fan jaaral ko ci benn yoon ñee jàng fiq te am na ci xam ne jàng ko sax. waaye bu suñu modèle mooy jàngale diir boobu mooy jàngale ba mu ñëw. nga xam ne la muy jàng ko. allahu loolu xel rek la. Mhm. ne woon na takkaawa aqal yi saara mislal wax yi. wallaahi wallaahi. sama ñaaw xel dafa mujj mel ne ak wax yu maanaam lu lu ma xalaat ba def ko day mel ne wax yu sunu ba wàcc. Mhm. Euh, wax na ko ci ci ci ci ci ci wax waxin yu bare bare bare ci ñawu gu sunu ñawal am xelam. Mm-hmm. te lu am xel rek la du ba du baax dëgg la dëgg la. waaye sunu borom nag comme nam mu ci yow mbir dalay waajal. Mm-hmm. boo lim mi ngi waaj waajal lii mu koy li mu koy waajal rek. Mm-hmm. kon fekk na mu jàng li war a jàng lépp ba tàmbali nag di jàngale. ndax ñooñu ma ñooñu ma jàngal na leen. ndax bi nga xamee ne jeexal jeexal jeexal am njàng dafa mujj jàpp si Mor Seye ci njàngale mi nekkoon ku mën a jàng koo xam ne ku mu la jàngal la nga daal dégg li li li nga jàng ci sax si Mor Seye dañoo leer te dafa baroon te daaw na nga laaj laaj lu bari waaw te sëñ bi nag moom nekk ku ku am fasaaxa te bu loo ko jàng bu leer bàyyi da ko da nga ko da nga koy dégg lool tax ñu gën a sawar a jàng ci woon ci sëñ Mor mm-hmm. bi sëñ Mor xamee lool nag ci la ko far bàyyi ñëpp mu di leen jàngal ne mu jàngale ñu xam kon ñu xam ca moom kon xam-xam xam ca moom ragal yàlla xam ca ak sàmm ñu boobu daana wax ne fan yëpp moo ci rawoon daani ko ñu wax balla maam daal moom laa xawoon a yamal ci ak yamal ci ci ci farloo waaye waaye nag dama ko jiitoon ci sàmm ci sàmm balla maam Touré balla maam Touré ci sàmm laa ko jiitoon waaye yi ci des yëpp moom man ñoo ci tollu yitte waaye ci sàmm rek laa ko laa ko rawoon laa ko rawoon kon day wane kon moo jiitoon ñëpp ci lépp loolu na tax ñu doyloo ko moo tax ba mu wootee jëmi ci yàlla ak lam daan junju te ba muy jàngal naan lii màgg na waaye am lu ko gën a màgg di ko junj te te te waxugul lu doon ñu ñu ñu comparé ñaar yooyu nag xam ne kon kii kat lañ bëgg ngir àgg ci yàlla moo leen ko mën a manal ñu daal di ko joxaat seen bopp nga xam ne kon day mel si si ñaar si ñaar bëggee jébbalu ñaar yoon ndax jébbalu na boobee bi ko sëñ bi yeesal ci ndigal li ba tey mu njëkk a jébbaluwaat macha allah kon loolu loolu tawfiq la sëñ daam sëñ sëñ daam eh, Abdourahman mhm. daa fekkoon sëñ bi yónni ko mhm. moo keneen dëkkatuma kat laate mhm. nga xam ne ca suba sa leen door jébbalu ñoom ca gaaw ba ba sëñ bi joxe ndigal dañ fa fekkut ndax sëñ bi leen yónni bi ñëwee nag mooy la am na lu leen fa wutu boobu la jëm Baakol leen ko ñu daal jëbaay waaw boobu la demoon Baakol Baakol waaw mu nga ci mu nettali leen la li xew seen gannaaw ñoom ñu daal joxe seen bopp Seydou Seydou Seydou sa Ndiaye moom moom bi nekk ci bi bi bi nga xamee ne yoon waa ngi door a tàmbali booba jébbal nañ waaye xamuñ nag nu ñuy ànd ak moom ba tey ñu ngi toog moom ci kaw ñu ngi jàng ci moom ba tey waaye nag ni ñuy dundee ak murit xamuñu ko woon mm-hmm. daa mel Cheikh Rafal la ko taxoon ñëw kon mooy mooy jàngale loolu waaye nag moom amoon na nangu boo xam ne moom Cheikh Abdou Salaam Ndiagne ndax wax ne ne sëñ bi xam nga soxna jature mm-hmm. sëñ Mbàkke Anta moo ko njëkkoon a yor mm-hmm. sëñ Mbàkke Anta mooy taw sëñ moo doon sëli mm-hmm. bokk maam si Anta lépp bi mu wàccee ab liggéey tam na mu wàcce liggéey ca ca ca ca ca euh, Pataar dafa xëy xëy dem ci bàyyi mu daal ñaari jant xëjuñ xëjuñu àdduna ñaari jant xëjuñu àdduna man damay soo bàyyi fi sëñ Bàmba ca la faatu ñu denc ko njaañ mhm. bi soxna si liggéeyee ba noppi nag ñu jox ko sëñ muy muy soxna jature ci la taawla soxna fat ja mhm. gannaaw bi la am ndigal boroom nag ci jox ko sëñ mbàkki ci ko sëñ sëñ sëñ sëñ mbàkki soxna d'abord sëñ mbàkki soxna ma nga Saalum mu bëgg ku ko yóbbul soxna si ku mu wax rek nga ne damay kon bind damay raw booba si daara àllarba rek la am li ñu fa jógee li ci bi si jàng la hmm. jàpp nañ ko dem sa sa sa da nga da ngay da bind hmm. fekk seer seer njaay boobu nekku fa ma ngi ca tool yi bu ñëwee nag lañ ko woon dégg ko te ñëw si ñu ne ko daa mel da nga am loolu bëggoon loolu santaan mu ne ko waaw si laa bëggoon ku ma ko yóbbul Saalum Saalum ne ko ba ma joxe dinaa dinaa la ko doxale ci la ko kon nag mën ngaa waaj mu waajee ba defar fas yu ba ak sëñ bi ñaanal ko mu sukk woon gannaaw son soxna si war mu téye laab woo ma jëme Saalum takk ndigam yor nga ne booba àll bi ñàng na lool mm-hmm. waaye neen bi mu génnee la ko sunu Boroom woon Lawhul Mahfuus waaw kuy bañ a raw bi kuy bañ a tàdd bi ni ñu woon Lawhul Mahfuus te fa la xam-xam yëpp tukkee ndey téere akbar lool loolu sunu Boroom defal ko ca ca loola ci ndig jëf gi ndigal sëñ bi demee Saalum wàcce soxna si na ko wammatee woon den noonu la ko wammateewaat néew nga xam ne soxna si ca waroon warmaal na ko ba ba ba du ca war mu du ca waraat waaw noonu la ko wammateewaat doxaat ba ba ba ku ne xam ne Mbàkke Kajoor Saalum sole na lool lool naawel fu mu ne waaw te boobu boobu ñàng na àll bi ñàng na boobu melagut nii boobu àll bi tojagut mm-hmm. ci la ko sëñ bi na waxee bayti jasaaka yooyu nga xam ne waxee nañ ko jànge jasaaka yaa xillu Ibrahima mawlaaka xare jasaaw mën naa daal di kaaw laaka faalam bi annaka inni zuridan abadan eh, ne ko daal yal na la yàlla fay yal na la yàlla fay yow sama xarit bii di Ibrahima ngeen ji pay na nga xam ne kat tey jii ku la gërëm la ngërëm lu sax dàkk waaw daane ko wazakrib xokka fi daa wa zaaka rib ko lii nag sa sa tonal loo xam ne tonal adduna la ak tonal àlaxira ca la ko waxoon bayit bayit yooyee kon day wan kon ñoom teel nañoo ànd ak bi teel xam lam am àndal teel ko teel ko liggéeyal itam macha allah jërëjëf jërëjëf sëñ Mor yaakaar naa ne njalbeenug yoon wi leer na woote boobee nag ma xamee ne woote nag mooy moo tolloo fan bis bi muy ñaar fukk na juróom-ñaar ci weeru koor ca nag ne suñu borom jox na ma ndigal ci lii Eh, ci lañ jébalaat njébal ko bees gi macha allah macha allah xame nañ ci kon ne am na ñoo xam ne ñu ngi woon ci biir daara sëñ Mbàkke Mor Anta Sali waaye bàyyi xel sëñ tubaa moo tax ñu ñëw ci daara ji hmm. di di di am lu ñuy xaar mel na ne am na lu leen ci suñ borom wan loolu eh, borom xam-xam yi natt ne Serigne Touba nee na bi may bëgg a feeñ jamono ni nawet ni asamaan di yëgee nawet bi bëgg ñëw suuf di ko yëgee ni la ba xol yi nit yàlla yëpp yëge woon nga xamante ni bi booba mel na ne bu nawet di bëgg ñëw boo sottee ndox sax bu yàggee pepp sax nga na ne nee na borom xol yi nga xam ne dafa maroon yàlla yëpp noonu lañ yëge woon ne am na lu yàlla bëggee wàcce loolu feeñ na ci ku mel ne euh, sunu maam euh, Modou Matar Mbaye wax nañ ñaam na bis muy tàggu sëñ bi ci Mbàkke Kajoor sëñ bi daf ko ne yow kat sunu borom day waajal gawar boo xam ne ci sant yi nga bokk day waajal gawar boo xam ne ci sant yi nga bokk loolu ku mel ne sëñ Mouhamadou Lamine Gueye Firdaw si nettali na ko nee na xëy naa ci yoonu yàlla wi di daw ba tisbaar gisuma nit sa gisuma tànkum nit waxatuma laak boobu gunóor ba ma defe ne may njiitul yëf yi am ti lu dut rek ab sant ab gawar romb ma sànni ma ab jat ak ma xam ne ab sant laa ba ma xoolee muy ahmadu kon am na nit yàlla yu bari yoo xam ne soobu woon nañ ci yoonu yàlla bi ki jàpp seen loxo nag yóbbu leen ci mooy Seexuna Ahmadul Xadim euh, ñi ngi lay jaajafal baax sëñ Mor xam naa question bu mujj bi mooy kon Sëriñ Tuubaa ci yan tànk la taxawale yoonu murit nga xam ne lii ku ko nekk nga dana la wóor ne yaa ngi ci yoonu murit ku ko génne doo am murit hmm. waa ci tërbiya ngirum tërbiya ci la ko ñett ñett yëf ci la taxawal yoon muy taalif jàngale yare taalif jàngale yare waaw taalif dëgg fekkoon na fi ay téere naam yoo xam ni jamono jamono ci lañ doon jànge moom ci boppam ci téere yooyu yàlla jànge waaye seen téere yi fi nekkoon yëpp téere téere étranger la maa ca naar yi la jóge yu noonu jàng lax dari yu ibnu eh, muxadamatul asiya eh, risalatun abi sayd alxayrawaani yi ibnu doreydi alfiyatun malik eh, maqaama daaliya chenral jaahili yëpp ay la mu gis nag taalifkat bu ne buy taalif benn jamonoom lay taalifal ñaar aw xeetam lay taalifal ñett am réewum lay taalifal kon bu fekkee bokk leen aw xeet hmm. bokk leen jamono ju ngeen dund bokk leen am réew su la taalifee du ngeen diggante ay wax hmm. te ku taalif ko nag culture am feeñ ca hmm. ku jàng ci tubaab yi ñaar bu ñibbisee tubaab bu sot lay doon ndax dafa la ko mooy dafa jàng xam-xam ba jëlaale culture ba ku naar yi ñëw la ca ëpp naar bu sot doon ndax dafa jàng xam-xam ba jëlaale culture ba bëgg nag bindal aw nit téere yoo xam dañ cee jàng seen dina xam ko te seen culture du sotti soppi ko loolu ko yóbbu ci bind yi mu fekkoon teer yi mu fekkoon ñu taalif ko tam yu am njariñ yëpp mu taalifaat ko dëppale ko sunu jamono mm-hmm. def ko ci ay way euh, xool ñett yëpp solo muy tawhid fiq ak tasawuf mu taalif ci fiq bu dee tawhid bind ci Mawaahibul Quddus mm-hmm. téer bu la téer bu day boo xam tawhid dong lay jàngale mm-hmm. ak alxidmatul mutahara ak faydul ganiyil mughni ak yeneen teer yoo xam ne yëpp tawxiid la ak njaal beenu euh, sulus bi njëkk ci tasu sixaan ak sulus bi njëkk ci tasu sibaan ñaar yooyu yëpp jëm ci tawxiid bu dee fiq mu taal fi masaali euh, kii jaw al jawharu nafiis ak sulusu ñaareel ci tasul sixaar ak sulusu ñaareel ci tasul shibaan ak yeneen xitaan yooyu yasar yu bari soo demee ci ci ci majmuwa bi da fekk xitaan yu bari yoo xam ne yëpp tawxiid la ci jàng mm-hmm. fiq la ci jàngale tasawuf nag ci la ëpp lum taalif ci la taalif jinaan ma xaaliqul niiraan xoqal bukaa ndax joxa daal hajj mun a wiru sudur ak yeneen ak yeneen ak xam ne yépp ci tasawuf la ko la ko jëmale ba ci sax grammaire muy naxu bindal nu ci saadatu tullaab kon yeesal na lislaam ci taalif ay téere ñaare muy jàngale musta bàyyi jàngal diiru ak nekkam keroog ca mbàkka ji ci bis bi keroog ba mu nekk ku doon jàng mën nga seeti fenn foo jàng ji tax ko woon a bàyyi jàngale ndax bi mu nekkee gànnaar bi mu jolof yëpp ñem daa taxool daan leen téere yi mu taalif bi mu ñëwee njaareem gën a tab ja gën a xat ci la soppi njàngaleen wi di daan jàngal ci ay tomb ak rëdd di ko leer ci wolof yi leer nañ kon daa soppi méthode bi muy jàngale waaye musa bàyyi jàngale kon leeral na mën a yeesal na lislaam ci fanu jàngale ba ci mujj mooy tarbiya li wuute jàngale ak tarbiya mooy jàngale mooy nit ñëw nel damaa bëgg a dem jumaa ja nga ne ko jumaa ja di ko fa bëgg a dem da nga jaar mbedd sàngam jaar mbedd sàngam jaar mbedd sàngam dem mm-hmm. su ma la ko waxee ba mu leer ci sa bopp tàggoon wàccu na ma yow moo xam dem nga moo xam di ma waaw mm-hmm. bu dee bu dee tarbiya nag mooy ñëw nel damaa bëgg a dem jumaaja nga jàpp ci loxoom ba nga ne ko jumaa ja nga ñu dugal allahu akbar kon mooy njàngale mu sar mooy danga kon yematu ci tegtal ndax jàngale tegtal la kii ne tegtaloo ko da nga ko far yóbbu kon rabbi asaabaka bil himma hmm. wala turabbihim bi dars bi dars faqat bàyyil tegtale ah, tey jàpp yóbboo tey yóbboo mi hmm, hmm, ah, ci lolo noonu noonu moo koy gën a gën a leeral waaye ni mu ko doon defe nag mooy day wéet ak ñoom dem ci àll boo xam ne àll boo xonq curu la doon moom dong la ñuy gis mu deen tërbiya defe seeni xol ci di leen liggéeyloo liggéey yu metti liggéey yu diis di leen xiifloo di leen marloo di leen tuddloo yàlla an loolu dox bi jëm jëm ci yàlla dafay daal di gaaw tuubaa gi na fi la tërbiya gi gën a gën a gën a gën a tare am na ci juróom-ñaari at yoo xam ne soxna Fat ja na yu metti la ndax daawuñ bool na ñeent daawuñ lekk daawuñ naan daawuñ nelaw daawuñ noppalu ndox lu fi jafe woon lool dañ daan roote ji ba ngaabu dañ koy yanu dañuy dox boo si bi daan wax ndox maa ngi fi doy sëkk waaye dama koy bañ a teel a génn ñu fi wër dëkk di fi dëkk di ko yàq ñu roote ji ngaabu di ko yanu di dox di di di gor di taxan di sàkket liggéey yu mett nga xam moom la ñuy yendoo ba jant so saa bi ma san xëy kenn ku nekk benn ngëb lañ lay jox ci pepp njëlbeenu tubaab moo xam doon sa suuna ba si lii doon wala saño nga yeey soo yeeyee ba noonu ñu xelli ko béeru sat la ci ndox jox la nga naan ko la bala nga ko amaat suba sa boole ko liggéey yu métti yooyu nag bu jant sooy ba wàcc ñëw ci kër gi du tax ñu noppalu bu ñu jullee gee ba noonu daal defi kuréel ñii di sikar ñii di jàng alxuraan ñii di jàng xasida ca lañ ba guddi màggat ñu door tëdd suñu tëddee suñu nekk gam gam suñu fekk leen jóg leen liggéey adduna ne xaju fi moo tax sëñ bi laxat ne woon bu ñu xamee nelaw guddi gannaaw suñ Tuubaa la kon ba fi nekkoon boobu nelaw guddi xewut kon ci yu mett yooyu nag ci leen doon tërbiyee di yéegi yéege ba àggaleen ci yàlla nga xam ci njëlbeen doon defar ay cadre mm-hmm. mooy xamoon na jot gii mu am dana mos am jot sax waaye lim am ci jotaku si néew dana ko mas a ñàkk mm-hmm. mooy dana dugg ci loxo mhm. mu fexe ba defar cadre yoo xam ne su demee ba dugg ci loxo bu mënatu ko it cadre yu wutu ko ca macha allah cee defar nag cadre yooyu mooy Cheikh Ibra Fall ak <laughs> Cheikh Abdou Sall Ndiagne ak Sëñ Daaru Xasan Ndiaye ak mhm. cadre yooyu ci leen defar ba nga xam ne ba mu demee ci géej gi la lam fi bàyyi woon dara soppi ko ci ba des dafa yokkuwaat jërëjëf euh, kon kon liggéey na liggéey bu rëy ci ci incha allah liggéey hmm. jërëjëf jërëjëf sëñ Mor euh, jërëjëf euh, bokki téléspectateurs yi jërëjëf sëñ Mor amatina solo lool ci ni nga ñu indilee ni sëriñ bi taxawale yoon wi euh, xerañu sëriñ bi ci wàllu li nga wax ne mi ngi ko teg ci yoon wi mi ngi ko teg ci taalif ak jàngale ak yare yaakaar naa taalif wax nga téere yum ci taalif ba tuddi ci lu mel ne euh, maahibul xudus euh, sama sëriñ ba sëriñ seexu naa ture moom sëñ Seex Touré Madina yàlla na yàlla yokk ay leeram ci barsaqul Muhammadiyya bi may jàng ci moom Mawaahibul Xudus boobu maa ngi jóge Thièyène Jolof di dem Sibol ñetti kilomètre la danaa dem tool ba wàcc soo ko dem tëralu ji bind eh, bi may jàngal Mawaahibul Xudus bi mu agsee ci eh, fa kullu man yaxturu bil baali abad fa bi xilaafi saaka rabbuna al ahad dafa daanu suñ Cheikh dafa daanu na ma xam yàlla dëgg sëñ waa moo ko def hmm. waaw daa dem xam ne waaye nii mu ñu xa nii mu ñu jàngal ci yàlla nag moo ko dal moom hmm. waaw waaw moo ko dal moom na mën na koo toggale ba nurule kook dara wute yàlla wute naag loola waaye nee na sëñ Tuubaa ko loo xalaat ba jàpp ne mooy sëñ Tuubaa sëñ Tuubaa wute naag loola ma dellusiwaat itam ci mm, bi ngay agsi ci eh, lu mel ne sahaadatu tulaab sëñ Malick Dieng dama mos a dégg muy wax naan bi muy am ñuy jàng sahaadatu tulaab bi ñu agsee ci kàlla walam walan wa in wa nu bayit wa agee wa xaw ma xat waxat wa in wa mis fii wabal hmm. nu mu ko andeeti eh, daa daa teg xalima gi daal ne wu euh, moom ku dul sëñ bi waroo koo jàngale hmm. daal wax ne maam xaali nee na woon hmm. ku ne wut na bul ne na hmm. waaw maam xaali ma jaxate nee na woon ku newul na bul ne na waaw loolu mooy dégg dégg dégg gu sëñ bi déggoon euh, xeeti xam-xam yi bi nga ñëwee ci wàllu tarbiya itam eh, li yéeme lool ci sëriñ Touba ci wàllu tarbiya mooy ndakate tarbiya dëgg mooy bul teg tegtalati nit ñi yoonu jumaa ja Mm-hmm. jàppal ci sa loxo yóbbu leen jumaa ja mm-hmm. sëñ bi ne leen nag pour ma yóbbu leen jumaa ja nag kaay ma wax leen ni ngeen di doxee mm-hmm. dem jumaa ja day laaj xiif dem jumaa ja day laaj mar dem jumaa ja day laaj ñeme coona dem jumaa ja day laaj néewi nelaw ndax yoon wi daa sori te bari dégg te ndox amut ci diggante bi kuy nopp lu doo mën a àgg ci loolu la leen tàggat ba ñoom ñëpp ñu mën a jógal seen bopp waa xuuti jumaa ji day mel ne loolu bu mu ko wootee itam mbooleem li nga wax ne ay kaadar ñi ko njëkk wuy si ñëpp kenn esewut ñëpp réussir waaye nañ xam ne li réussir li dee ko ëpp uh-huh. ñoo xam ne aw mara leen rey ñoo xam ne ab xiifa leen rey ñoo xam ne coono yu baree leen rey te am nañ garaat yu toll ne yi mag ñi am uh-huh. te ci tër bi yeegoogu lañ faatoo uh-huh. mu mel ne sëñ bi ñemee responsabilité ak xam li muy def te man ko tax na ki jóge woon njàmbur bu ko defaree ba noppi danaan ko dellul njàmbur du ko yebal Saalum danaan ko dellul njàmbur bañ xam sama defar ki jóge woon Saalum ba mu neppe mu ne ko dellul Saalum ki jóge woon Kajoor mu ne ko dellul Kajoor ki jóge woon Bawol mu ne ko amul kenn ku sëñ Tuubaa defar ba noppi eh, minancé la déedéet ba mu la defaree ba noppi da lay delluwaat fa nga jóge woon ba nga demee dëkk ba nga dëkkoon di sa kër ndey ak sa kër baay dootoo fa xaj ci àll ba lañ lay dogal diir bu gàtt dëkk booba tas sa dëkk taxaw mbooleem ñi sëñ Tuubaa defaroon kenn ku ci nekk sa dëkk baay tas na sa dëkk taxaw hmm. ñu fàtte sa baay xam hmm. xam la hmm. mbooleem ñi tudd ñëpp kenn koo xamante ne bii sëñ ma sëñ ma Samba Diop Samb sëñ Muudu ma Samba baayam gënu koo siiw Hmm. waaye sëñ Massamba gën a siiw baayam. Hmm. sëñ daaru Assane Ndiaye mu doo nettali baayam waaye sëñ Bay Fallou Ndiaye kenn xam na ne baayam gënu koo siiw. Hmm. waaye doo baay sëñ Darou Assane Ndiaye gën a mel ne sëñ Baara Jenn sëñ Issa Jenn gënu koo siiw waaye sëñ Issa Jenn gën a siiw baayam. sëñ Modou Mamoun. ku mel ne sëñ Modou Mamoun Mbacke maam Cheikh Anta gënu koo siiw waaye maam maam Cheikh Anta sëñ Mbacke noonu nga koy tàmbee ku mel ni euh, boo ko doon topp par benn. ci ñoom ñëpp ñi defar sëñ Mourou Moussa Fall. Ah, dafa defar seen i taw waaw mu wax sëñ Mourou Moussa Fall maam Cheikh Rahim Fall gënu ko siiw. Hmm. waaye maam Cheikh Rahim Fall ñu néeway xam sëñ mu roqee Fall ji. kon day mel ne ñi sëñ Tuubaa defar defar seen i doom seen i doom gënuñu leen gënuñoo siiw seeni i doom sama dina gën a siiw waaye ñoom ñoo gën a siiw seen i baay loolu nag ci seen i baay duñu woon ay jaahil duñu woon ay lu ñu woon nekkoon ci daara lañ nekkoon jaamu yàlla ak liggéey di jàngale. jërëjëf kon sëñ Mor yaakaar naa ne ñi ngi lay sant bu baax baax di la gërëm di sant bokki téléspectateurs yi jàkkaarloo ak ñun di ñu seetaan xam naa rek dama lay bàyyee euh, kàddu gi su ko defee nga tàggatoo ak bokki téléspectateurs yi nga xam ne ñoo ñuy topp ci jataay bi nga xam ne moo di sosu yoonu murit euh, jërëjëf sëñ Fallou ñu ngi gërëm bokk yëpp ci euh, topp gi di ñaan rek yàlla na suñu boom def dëgg-dëgg taalibe sëñ Tuubaa sëñ Tuubaa nangul suñu taalibe mu yéegal lu ci taalibe yu mag yooyu nga xam ne ñoo doon jiw yi nga xam ne tasaaroo boo jur li fi nekk tey yàlla na suñu ba mu yéegal yéegal ci tali bi mag ñoo ñu ànd na moom ak Seex Xadim mm-hmm. asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu jërëjëf mbokk <coughs> taalibe yi jërëjëf itam mbokki julit yi noo leen sant leen gërëm di feddaliwaat sunu yaakaar Seexuna Ahmadul Xadim di ñaan sunu borom mu nangul ñu sunu taalibe yéegi ko ci eh, taalibe mag ña lépp loo xamante ne bii moo di xajamal diine yàlla na ko fi suñu borom subhanahu wa taala lépp loo xam ne mooy jaxase euh, xoli jullit yi ba bennoo gi sëñ Tuubaa doon woote euh, mbooyo mu mën a doon mbooyo mooma yàlla na ko suñu borom dogale génn ko ci àll ba ba jullit yëpp nekk benn taalibe Sëriñ Tuubaa yëpp gën di doon taalibe Cheikhul Khadim ñaanalaat Sëriñ Tuubaa Cheikh Mamadou Muntaxa yàlla na ko fi yàlla gën a yàggal te doole ak wéram wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu من سنني خير خديم المصطفى فإنني أقدم بما اصطفى من سنني خير خديم المصطفى فإنني أقدم بما اصطفى أقدمه إلى دخول الجنة دار الخير والمنى والمنى